Ngabou Média bu leen fàtte abonné wu bés close de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar internetu bu Média gannaaw bu ñu leen euh, nuyoo waatee ziar leen ñu ñëwaat ak yéen ci beneen rubrique euh, people euh, tey nag ñuy wax ci ki nga xam ne nag moom mooy sambasin ñu gën koo xam ci turu Kouthia Show moom nag jamono ji bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne moom la ñu jot wala sax ci ki nga xam ne moom moo ko gënoon jege doon def ak moom émission di mbay kookee nag ci ab émission boo xamante ne moom la ñu dalaloon. doon fi nga xam ne nag moom mooy ca Sénégal 7 moom mbay nag eh, daal di biral ay kàddoom xam le ne kii di eh, Kouthia nag di Samba Sine nag jamono ji may addu eh, ngeen di teewlu dafa feebar ba sunu lool ba munalul sax boppam dara loolee nag nekk loo xam ne ay kàddu yu mbay yëkkati la ba noppi nag di sàkku ngir rek ñu daal di ko jàppale moom Kouthia ndax nag feebar bi nga xam mom moom la feebar mënuñ ko faj fii ci réew réewum Sénégal euh, dañu ko war a yóbbu bitim réew pour mun koo faj mu nekk na appel boo xam ni euh, kii di mbay nag daal dina ko yëkkati euh, ngir ñu mun ko jàppale ci wàllu woowee ay kàddu yoo xam ne nag yëkkati na ko sax ñu teewlu ko moom mbay comprendre nga di ko dëggal di ko waxal ba ku caa mënul boppam te nekk nii faj ba mu faj du faju Sénégal dañ ko war feneen faju ko anam moom moom defe mi ngi dañ ko war a lijjanti ku caa dañ ko war a lijjanti mun fi mu tëdd mënu faa bougé. dafa sonn waaw dafa sonn Sénégal nañ jël en charge Kouthia man maa ko fi doog a wax. Mhm. nañ ko jël en charge dem lijjanti ko faj ko. Mhm. comprendre nga Kouthia feebar. Mhm. dafa feebar kenn déggatu ko kenn gisatu ko kenn nañ ko lijjanti. nañ dem lijjanti ko. waaw. Ngabou Média bu leen fàtte abonné wu bés cloche de notification bi ngir dara bañ leen raw ci suñuy xibaar